baax di ànd ak yéen amis chers internautes de Sunugal 24 dalati leen ak jàmm émission bu bees tàqte nar a neex émission bi nag challenge musique lañ ko tuddee wala musique di challenge noonu leen ko tuddee noonu la l' essentiel mooy que ni dinañu ànd ak yéen ci lépp loo xam ne musique la yow mi nga xam ne yaa may seetaan am nga droit wax ma kan mooy sa woykat ban woyam moo la gën a neex bu ko defee ma ak yow nga woyal ma ko nee na lépp fii lay xewee ci suñu gaal 24 comme li neex askan wi moo ñu tax a jóg te challenge yaakaar naa ne ak tolluwaayu réew mi da ciy defee ñu bëgg jëlante kaf foo agréé lépp fii lay xewee bu ko defee sama réalisateur comme moom euh, dox du bàyyi yoonam te xam na fi may jaar dama naan ko rek rang muy gaaw ñu dem découvrir éléments yi dellu si waat mën a ko wanteer yaa ngi ci jàmm. déglu musique. musique waaw. bëriwul lu ma koy déglu de. waaw mais des fois di nga déglu musique. non man ngoyaan laay déglu. ngoyaan kan moo la gën a neex ci ñiy woy ngoyaan. xanaa caat sama rak. caat mooy Omar Loum. Omar Loum waaw. ban ban Omar Loum moo la gën a neex. buuroo man ci réew mën a guddee doota nga war mbaam ngewel yango na boobu daf may daan. ndeysaan ay ci doyee loolu boo ma ci dolliwaatee damay jël. may daaneel quoi. xam nga xam nga xam nga doole ci ay dóor rek la bon dolli wat ma ci woy bu ko yóbbu yow li nga moomo moomo ko sa dangañ dangañ yee jëli am na maana personnalité woy boobu tamit daf may yóbbu ay ci ak banaat non bëri na bëri na fii ba suba buñ ko doon topp amaana di nga fi yàgg quoi ca bëgguma jël sa temps bi yëpp. wuy ma man loo jël ci sama temps doyut ndax yaa way daaneel déjà est que du ma jigéen ci caat ñëw ci yow wuy ma li nga njëkk a woy sànq boo damay jël. yow Ousmane Darame Ousmane Longo ma ca Ndaama Diarra Cissé la kooku mooy maire Nioro bi mënuñ ko ñàkk di woy saasune parce que Ousmane la kuy def koo xam ne daal loxo ci poche da cee gaaw di battre ñëpp. est xam nga ne yow da ngaa war a dem woy ngoyaan. non euh, laaj ma caar rek moom boo ma laajee dina la wax kan mooy As Malick man la yaawu jaa xale bës man la ñëpp di wër. <laughs> merci beaucoup. kontaan naa ci yow. Kaana du xalaat ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay delloo sant bu baax a baax a baax a baax. mi ngi nooy mi ngi nooy ah. non mi ngi nooy bu baax a baax ak teewaay bi ngeen teew fii nii. yow daa mel ni da ngay déglu musique de. non oui mais man benn artiste la am quoi. Euh, kan mooy sa artiste. ah Kanaba général bu mag bi rek xam nga moo fi nekk moo def gars yëpp nante instant yi game bi nii gars yi dañoo commencé bëri wax nii rek mais ñëpp xam na ni Kanaba moo moo téye game bi nii jàngal leen sañse def leen nante. ban ban woy la Kaana woy boo xamante ne ni yow moo la gën a neex. yaay yaay. est-ce que mën nga ma ko woyal. si. li may ñaan yàlla mooy sama yaay coono gi may daj ak li ma defaal ma dund ba tekki ndax mën ko ko faay yàlla na ma yàlla dolli ba ma mën a mën a bégal sama yaay ndaxte yaay du baay ndaxte baay demee gàddaay du dara la fi baay nga ko xare déet naayet <laughs> yow yow boo ko gaay de boo gaay général bi fi nekk bas na boos ñu ne yëpp dañuy xar <laughs> man dama koy déglu bu baax sax ban musique nga mën a kan mooy sa musicien. ah kii na ah yow yaa nga ca ancien. waaw Ousmane Seck la koy déglu ah. woyal ma benn woyu kii ah. wax ma ci kii ban woyam yi ban woy moo la ci gën a kii tax ma sànni jamra ma tax de <laughs> ki foofu laa mën a yem nag ah. ki tax ma sànni jamra ma tax di way <laughs> juma yaay Seydi yaa tax mana sam-sam ma ah loolu neex na ah ak bi muy ak ki ne laam xam nga dafa mën a way nag Xaadimu Rasuul man looloo tax mu neex ma ah muy ah, am na way muy way eh, Mamadou Moustapha boobu daf ma neex ah non munu ma munu ma ko way nag non damaa complexé munu ma ko way non damaa ko damaa complexé bàyyi bàyyi ma ñamal la boobu non dindi naa ko dindi naa ko dama koy xaw a fàtte quoi. waaw léegi wuy ma ci complexe bi woyal ma ci tuuti. ah non complexe non mënu woon man sama baat moo neexul gisoo. nii laa ko bëggee sa baat nu mu mel baax. jaay katu fëgg jaay xam nga baatam day xuur. waaw kon à part Kiné Lam keneen kan nga mën a woyaat. noo man dinaa déglu ay Ousmane sek waaw woyal ma woy Ousmane Seck. ja ja Jaliba Koyaate xam nga dinaa ko déglu Gambien boobu naa ko déglu bu baax. waaw woyal ma fi woy Ousmane Seck wala Jaliba. Ousmane Seck. Samba yaa ne waaw foofu laa ci mën a. déedéet yow li nga bëgg dafa yomb. <laughs> ah non non mënu ma xamu mënu ma waaye damay déglu mais mënu ma ah ah lu lu ma lu ñamalaat ma ci Ousmane Seck bi tuuti. Oh, Ousmane Seck Ousmane Seck dina wax euh, ki respect ah respect non mënu ma ko way mais dem naa la expliquer ko ni ma way jox sa morom jox sa morom respect xam nga nu mu koy waxee loolu tamit neex na ma lool. non mënu ma ko way <laughs> kan moo nekkoon sa musicien ji say jamono. man de wax dëgg yàlla Youssou Ndour rek ma sa nekk sama ak Kiné la euh, ban woy Youssou Ndour nga mës di see déglu mu lay neex. yëpp moom koy Youssou Ndour déglu ne lu neex la. woy masa woy yëpp jàpp nga ko. Ah, jàpp naa ko waaye ma nu wax de. dimbali ma nag yaay booy nag ma ci tuuti. <laughs> yàlla xam ne mënu ma koo woy sama neen ne yow tamit xam nga ne mënu ma koo woy. Ah, waaw waaw am na woy yu mu doon woy ci seeni jamono. Euh, fàttaliku woo ci dara dara dara benn moo sax nga waxal ma ko ah moo moo moo mënuma koo wax nag wallaay yàlla. ay yaay booy woyal ma tuuti nag. billaay soxna Sadiane woyal la waaye baat bi sax dafa métti. waaw woyal ma may la ñaari junni woyal. <laughs> nga wàcc te daw ñibbi woyal. ay sama wujju bu ma ndax xam naa ne boo ko yoroon jox ma ko billaay wallaay. billaay damaa mënul woy rek sama ndenne billaay di dimbale ma rek waaye moom sama dama. Dakar ga ca yoonu Mbadaan. Ah? ah kenn mënu ko dem. Dakar ga ca kenn mënu faa dem. <laughs> xanaa mënati ko. max yàlla may la waaw loolu de moo naa ko man kay mën na naa ci way yu bare xanaa damaa gëj a way rek ndax. waaw dangaa yàlla ndax xam nga mag bu na egg foo xam ne day gëj a way rek waaye ba tey mu ngi sama xol wala yàlla xam na. ay ca lu ne gis naa ko fi ci complicité sama réalisateur nee naa la émission bi ci euh, xale yi nga xam ne ñoom seen télé gi ci seen biir poos ñoo ko moom waaye nee naa la du xale yi kase mag ñaa ngi ci biir euh, payeeg maire yi nee naa yaakaaroon naa ne musique euh, xale yi rek koy déglu waaye ndekete am na paa yoo xam ne fa ñu tegoon seen loxo ba tey teggiwuñu ko dañuy déglu musique naam am na ci xale yoo xam ne boo leen dékkee micro lan la leen njëkk waa wax non man du ma déglu musique xasida yi laay déglu dañ leen koy nangul réew mi toll foofu sama réalisateur ay ca ci sa complicité dañuy daal di dem jëliwaat yeneen éléments yi nga xam ne moo ci des mën a ñëw dellu siwaat commentaire ci li jot a xew ca parcelle unité 3 ci marché lundi ci challenge musique léegi-léegi lay doon ran muy gaaw ay ci ñu del dem jëli éléments yi daal di dellu siwaat ay ca ñu ngi leen di nuyu di leen jaar yéen a ngi am jàmm bu baax yéen ku leen gis xam ne xale yi ngeen déglu musique ngeen daa mel ni jiwuma de da ngay déglu musique. ok kan mooy sa musicien. man xam nga ne xar ba xaw si jaw na balaa ko Seck. na ah. xam nga ne mooy woomu. ban musique moo la gën a neex ci Wally. Wally moom ba boo bëggee dégg-dégg waaye yëpp moom a neex. waaw euh, banu Mame Fall bi nag moo ma neex. aw bu sa ñang mati ñang ni ma taali sange aw bu sa camara si di Fall ndoo bin bee bokkar Alex si di ale mooy seen waa jeex na xam lool loolu dafa loolu tax la loolu dafa neex quoi moo la moo da fada bokkeeg rasulullah yi bàyyi sëñ Abdul Fatah moom sërif bey Mbàkke Mbàkke li ñu defal daa bare yi loolu daa foor barke sëriñ Tuuba waaw man moom tëggkat sabar laa man sabarkat laay suivre quoi mais am nga woykat waaw am naa woykat moom kan mooy sa woykat man Youssou Ndour mooy sama woykat ban woy la Youssou Ndour woy boo xam ne moo la gën a neex non man Youssou Ndour moom woyam yëpp ma neex waaw mais wax ma ci benn non waayam yëpp a ma neex waayam yëpp a may daaneel quoi xam nga mais bëgg naa Youssou Ndour mais xam nga man maa ngi dund xam nga taasu beeg yooyu ak aar bi quoi. waaw ban taasu nga ma mën a taasu. ma ne sa jikko yiw na sa jëmm ji man du ma doyal looloo tax ma lay wayal kon tàccul awul mëru ko jug jug yëngal ngeewal te ma yëngal ngeewal wal yëngal ku la du nit ku baax daa topp bakkanam bëri bakaar te du bagage buggul bagage du porte sax bagage moo du am kalaas ay bëta moo laas ay dàllam ñaaki laas du yàgg ba mu dégg elasa dana yuuxu ne ambulance loolu temps la quoi yaa ma gën mais nii la quoi yaa ma gën non xaw ñu doom pour kiwel quoi waaw noonu la fay demee sama rak la dëgg sabar la dañu koy invité nag waaw yaa ma gën a xam ok ah Alioune Mbaye Nder maa ngi soog a gis nag koo xam ne mën naa def ak moom ban woy la Alioune Mbaye woy bu la gën a neex mu gën a neex <laughs> bat bi daa dee. wuy ma dee googu la mooy tax mu gën a neex wayal ba ci George tuuti tuuti. wóor na yàlla dimbale ma rek wéy bi moom baat bi gisoon ni may waxee nii. moo ci neex. George dikkati na te dan dan dan dan te dan dan dan soo waaji ñëwati na ba. déglu ma kaay kaay yow rap ngay déglu yow yow arrangé nga ma. bëgg naa daanuy rap tey ànd ak yow. Ah. yow ban rappeur mooy sa rappeur préféré. wan léri kii mooy sama rapport préféré. ban ban rab la mos a rab rab boo xam ne yow jàpp nga ko. ban rab mooy namel namel. ayca woyal ma namel. <laughs> déggoo ma gisoo ma yónneewu ma man maa ñëwoon ñaan la sa yaay ma ñëwoon ñaan la sa baay man maa ñëwoon ñaan la sa maam. Batman faaw ji dey seen yow laa nopp mais munuñoo déggoo Batman la. waaw ñu dey seen yow laa nopp mais mënuñoo déggoo Batman waaw Batman. yow est-ce que doo bàyyi bi nga ñëw ñu ñu la nga way. kan waaw. ñu produire la nga way. waaw boo leen produire kay mën naa. rab ah? moom dama kaa bëgg ak ban nga mën a rabaat. Ah, na. ah waaw wax la ne fi nar a gis lu ne <laughs> gën neex. Nguur Amina. léegi ban mën nga maa woyal Nguuda Amina tuuti feexal sama xol. <laughs> Nguuda Amina. Baba Amina Diop. Nguuda Amina Gus. <laughs> déedéet daaneel bi daaneel bi laa mu ñëw. Gus. <laughs> déedéet commencé waatal daaneel. Nguuda Amina. Baba Amina Diop. Nguuda Amina Gus. ah dafay gën a ne loxo sa kaw <laughs> Aïcha ba tey tasewaat naa ak keneen am na droit laaj ko day day lu musique am de tonton ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay soxna si. yow da ngay déglu musique wala. waaw ah, damay déglu musique de. yan yan yan genre musique ngay faral di déglu. waaw ah, Omar Pène nag mooy sama waykat moom moom laay déglu léegi nag moom Youssou Ndour moom neex na ma moom waaye Omar Pène mooy sama waykat nag moom. ban woy Omar Pène moo la gën a marqué boo xam te ne mën nga ma ko woyal. Omar Pène nag dama doon déglu ay waay waaye damaa gëj a déglu fi nekk nii way moom musique moom mel ni ma si meloon mu njëkk dama ko see melatut bu njëkk way Omar Pène wax dëgg yàlla yu bëri dama ko mënoon a way waaw. ci woyal ma ci benn woy rek. réew taax seetal ma sama waaji te ñaanal ñu boobu moom daf may soge bopp ti moom wax dëgg yàlla ndax fu ma ba mu koy way dafa am fu ma fekkoon amoon sama copain yi ma doon àndal te ñoom ñëpp dem voyage ji boobu nag moo taxoon mu defoon ma soog bu baax ak agresseur baal li ngay baal li ngay def te baal baal bi te dem liggéeyi ji boobu dem def na ma soog bu baax waaw boobu ba koy ba koy bind sax si kay kii dafa damay def soog ndax daf lay daf lay ñaax xale yi saa su ne ndax Omar Pène moom yëpp yeete la moo tax looy problème bi yeete la. kon daal yow ci paa yi nga bokk. <laughs> waaw Omar Pène moom sama waay la ak ba ba barni bi ba way naan kii nii bu damay fàtt na mu tudd mooy stade Tëngéej bi daano waaye woo mënoon naa kaa way waaye léegi fàtt naa. yow daal wayu Omar Ben yëpp la neex. yëpp a ma neex ak doomu Gaynde Njaay waarul tiit waarul ragal way léegi dama. non léegi dama mënatul way sëñ Ba non léegi moom waaye dama se li problème dama ko doon déglu mais léegi dama déglootul way wax dëgg yàlla léegi moom sëñ Babacar rek moo tax. merci ñu ngi lay ah, kontaan naa si yéen naa def. ça va maa ngi fi. da ngay déglu musique wala. waaw damay déglu musique. kan nga gën a bëgg ci musicien yi. Thiat Seck. Thiat Seck ban woyam moo la gën a neex. mooy woy bi muy woy xale jigéen bi mu naan xale bu ci réglé banu maaye laa. kaw woyal ca kaw ndax li ngay woy daa am solo. xale bu ci réglé banu maaye laa. Thiat Seck woyal laa Baara Mbaye Baara Mbaye bii. woy bi daa géey ni koy woyee Thiat woyewu ko nii woyal ma ko woy bu ngéwélee bu ngéwélee. <laughs> bu ngewele laa bëgg <laughs> waaw waaw yokkal baat bi kon. xale bu ci réglé banu maayee laa. Ah. caat sekk wooyee laa baara mbay. baara mbay bi neex naa. xale yi réglé leen. ndolla <laughs> kanam gi daa musique de. maanaam da ngay tull ay Dakar wala yooyu moom. ah. garaawul garaawul garaawul kon challenge musique da la koy lebal ba beneen yoon. Ah, non amul solo mais nag musique c'est de l'art. musique c'est de l'art yow mais ci musiciens yi am na ci koo xamante ne nii peut-être yaa ngi koy déglu. waaw mais j'aime Youssou Ndour quoi. Hmm? Youssou Ndour moom la ma koy déglu moom. Youssou Ndour ban woy mu Youssou Ndour moo la gën a neex. ah Youssou Ndour ma ci may waaye bi ma neex bëri na. ah wax ma ci benn. non bëri na. wax ma ci benn rek. ah non non Youssou moom vraiment c'est extraordinaire quoi. ah wax ma ci benn. non mënu ma la soxla benn yu bëri ndax Youssou waaye yëpp moom mu neex. Euh, mais ci wax yi muy wax amoo ci ay paroles yoo ci jàpp ak yooyu. bu dee bu muy woy Baye Niass moom boobu neex na ma trop. Ah, waaw ma ci Baye Niass lan lan la ko woyee. mu ne su dee da ngaa a woy ne bu dee a woy jox ko ci Baye mi ne dama nga xooli yonent bi boo ko bëggee ci Baye Niass ah, wax suñu waaj li mu ci wax suñu waaj ñun taalibe Baye gis na ci loolu quoi. gis nañ ak woy bu woy Sëñ Fall tamit sëñ Fallou bi ndaka la ko wooyee. ne yow yaay ah, wooyal ma ko wooyal ma ko man moom dégg nga non ah mujjee ngaa déglu musique. waaw ah, mais parce que non parce que moo taxit. <laughs> Ah, nee naa leen comme ni ma ko waxee woon sàng du leen ni kenn lu ne ku ne ngi ci te itam mbir mi dañu koy mayonnaise kenn ku nekk am nga ci droit daal di capputeen noonu lay demee ci challenge musique Steva di leen andil saa su nekk li leen neex challenge musique nag comme na ma ko waxee woon ci sama njaal benn kenn ku nekk bu ñu tasee yow dañ lay laaj kan mooy sa woykat bu fekkee da ngay déglu musique ban woyam moo la gën a neex ci woy yi nga daal di koy woyal ci nu mu gën a gàttee gën a neex yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan jàppal ne bés dina jot mën naa tase ak yow nga wax ma kan mooy sa woykat wax ma woy bu la gën a neex ci ay woyam bu ko defee nga woyal ma ko ñu bégalante kaf foo ak ree kon yow mi nga xam ne yaa ñuy suivre am nga droit commenter ci ñu fi jot a jaar ñëpp ak woy yi ñi fi woy kan moo ci dàq woy woyu artiste am wala dafa juum wala juumul seeni commentaire seeni analyse la ñuy xaar wala yow mi nga xam ne jàpp nga ne mën ngaa woy te doxaguma ba daje ak yow mën nga def vidéo wax ma kan mooy sa woykat woyal ma woy bi envoyé ma ko ci whatsapp ci numéro commercial bi nga xam ne mooy daw ci suuf bu ko defee dinañ ci jot wala nga yónnee ma ko ci sama numéro bi nga xam ne man mi def émission bi bu boobaa dinaa ci mën a jot 77 746 71 33 bu ko defee lépp fii lay xewee ci Sunugal 24 yéen lañ fi nekkal kaf foo ak ree ci challenge musique jox leen di daje prochainement ki seen deuxième numéro challenge musique